salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu Sen Sport 221 suñu gayndey U17 yi tey ji am nañu ndam ci match bi nga xam ne doxoon na seen diggante ak woon Leone te mu ñaan lii di demi-finale tournoi UFOA A foofu la ci Mauritanie ñoom ñoo ci mujjee am ndam gannaaw bi ñu demee 0-0 ba jongante gi jeex ndam demul ndam dikkul ñu dal di dem ci série penalty Sénégal dal di am juróom benn bal ci juróom pour ñii di waa Sierra Leone kon loolu moo leen may ñu qualifié ci li nga xam ne mooy final bi waaye itam dal di qualifié ci li nga xam ne mooy CAN bi nga xam ne jagleel na ko jagleel nañu ko xale yi am fukki at ak juróom-ñaar te ñu war ko joué ni ki déwén ci atum 2023 kon qualifié nañu ci final bi qualifié ci CAN bi ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba Dieng moom nag kii di Igor Tudor bi nga xam ne moo koy tàggat yëkkati na yeneen i kàddu tey ji ko ci moom di xam ne kat moom ba léegi ne mu ngi wéy di gëm ki nga xam ne mooy Bamba Dieng gis na ne daal boo xam ne am na ay qualité gëm na ko bu baax a nee na kii di Bamba Dieng dafa bokk ci attaquant yi nga xam ne ñoom am nañu leen ñetti attaquant la ñu am jamono bi nee na foofu la ci Olympique de Marseille te ñetti ñooñu ñu la Bamba Dieng dafa bokk ci ñoom ànd ci kii di euh, Sanchez ak ki nga xam ne mooy Luis Suarez te ku nekk ci ñoom dina am li nga xamante ne mooy temps de jeu loolu Igor Tudor daal dina koy gaaral ki nga xam ne nag mooy tàggat Cheikhou kuyaate ak kii di dégg nga Moussa Niakhaté nga xam ne moom la ñuy wax Steve Cooper foofu la ca Nottingham nga xam ne ñu bari jàppoon nañu ne dinañu ko dàq balaa yàgg dara résultat yi nga xam ne moo ngi koy am ak équipe boobule moom moomu la de dañoo far sax yokk li nga xamante ne mooy contrat ba 2025 maanaam kon wóoratuñ ko koy remplacer mais moom ci boppam moo fay des di wéyal li nga xam ne mooy liggéeyam ndax yokk nañu yeneen i at ci contrat ba ba juin 2025 moom kii di Steve Cooper bi nga xam ne mooy tàggat Nottingham Forest nga gis ne kat ci ay mbiram jamono bi doxagul. voilà ki nga xam ne nag moom la ñuy wax Formose Mendy di défenseur u Amiens di international sénégalais moom nag lance nañu ko bëgg moom défenseur bi la lance daal la ñuy wax ne bëgg nañu ko. léegi nag ñi nga xam ne ñoo di waa Amiens ñoom tëj ñuy benn buntu ngir bàyyi ki nga xam ne mooy dégg nga Formose Mendy mu daal di dem kon Lens bu ñu dëggalee seen bopp mën nañu jot ci moom ñu fàttali leen ne bii dafa bokk daanaka ci yi taxaw ci championnat bu France ndax ngi wane seen bopp ci li nga xamante ne mooy ndorteeli saison bi ni kii daaw rek gis nañu nañu jaloor yi nga xam ne ñoo ngi ko doon amal waaye ren moom dañu tàmbali mbir mi ak doole ñoom waa Lens ñu ngi wane lu leer jamono yi nag dañoo bëgg renforcer li nga xam ne mooy seen défense bi te Formose Mendy mii la ñu teg bët bu ñu sukkas ndekoo ci yi Karim Benzema moom du bokk ci match bi nga ne Real Madrid war nañu ko am ni ki suba seen diggante ni kat dañoo jàpp ne xëj na dafa sonn a xew daal moom bokkul ci jongante gi dañu koy noppal voilà ki nga xam ne mooy Carlo Ancelotti daal dinañ xam ne daal ki nga xamante ne mooy Karim Benzema du dafa am blessure wala dara voilà dafa jàpp ne xëj na dafa sonn rek tax waaye ak lu a xew moom bokk ci match boobu Real war a am seen diggante ak Getafe dina dellu si ci yeneen jongante yi nga xam ne war nañu ko amal si retour contre Shakhtar Donetsk wala sax li nga xam ne mooy El Clasico ki nga xam ne mooy Wesley Fofana di joueur Chelsea football club bi ñu doon doon wax ne dafa am blessure ci match bi Chelsea doon joué ci ligue champion bi weer lay toog waxam doo ko football quatre semaines la ñu wax ne dina ko toog di ko faj moom ki nga xamante ne mooy Wesley Fofana nekk défenseur bi gën a cher ci histoire football anglaise. Franck Ribéry Franck Ribéry nag moom jamono bi kayiti xibaar dañoo biral ne fi mu ne jege na lool ngir tekki daal yi voilà fi mu ne nii daal ci ne ci la nekk jamono bi mooy dal di taxale ko ak ñii di Salernitana gi nga xam ne bu ñeen di bàyyi xel ñaari at yi fa la nekk moom Franck Ribéry la am muy ñeent yoo xam ne jamono bi dégg nga mu ngi doon wéy di amal ay jaloore foofu la ci ko daaw ak daaw jéeg li a wane waaye daal kayiti xibaar biral nañu ne fi mu ne nii daal maanaam a ñu ngi dox ci loolu ngir xool naka la ñuy def ba daal di terminer contrat bi dox moom dañ bi nga la euh, lu toll ci ñetti bal ci match yi nga xam ne joué na ko bi ñuy dooree saison bi ak léegi loolu nag yaakaar naa ndorteel gu am solo la xale la bu xarañ bu mën a football ñii de Feyenoord ñoo ko moom ñoo ko jëndoon voilà yi ñu dal di koy appelé foofu la ngir mu war a mën a am temps de jeu ngir gën a mën a am expérience màgg bu baax a baax ci championnat bu Hollande 19 ans la am jamono bi moom kii di Aliou Badara Balde 5 euh, matchs yi mu joué comme ni la ko waxee 3 bi dal dina ko ci marqué. ki nga xam ne nag mooy Yankuba Diatara mooy ministre des sports bu bees bi dafa daal di recevoir ki nga xam ne mooy el tactico di Aliou Cissé di tàggat Lions yi jamono bi ji ñu waajal li nga xamante ne mooy coupe du monde bi ministre bi daal dina koy dalal amaan na dara bokk ci yi ñuy waxtaane mooy xëy na wàccaay yi nga xam ne war nañu koo amal ngir war a mën a dem ci coupe du monde boobule voilà loolu nag xëy na bokk na ci li gën a tax mu recevoir ko après lépp loo xam ne jotaan nañ ko ci xibaar ci la nga xam ne ruuse na ci ndaje moomu dinañ ci dal di dellu siwaat